Allah. وبسرير كلنا بلا سبيل إلى جميع الصراط المستقيم وبسرير كلنا بلا سبيل لك الكتاب يا قريب يا مجيب يا من به لا تمني خير العجيب خير والذين كان له يا هدى من خير نحوه إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمهين دلتنا الكريم عملنا هدى به يهدنا من قبلنا يا الصراط المستقيم عملنا هدى به يهدنا من قبلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يهدنا وجعلنا سواتبي لما يخاف وتقنا عندما وبيننا وبين تجد كمال الكبار وجملة السماء أنت الباري قبل الآسرية تجيب أمام لا صالح يا حكيم قبل الآسرية

مالك المكرم المنتخب قال سيد بالقران من نبي مدام ما يلم خير قال سيد بالقران من نبي مدام ما يلم خير قال سيد بالقران من نبي مدام ما يلم قال سعيد بالقران من نبي مدام ما يلم خير لا اله الا الله لا اله الا الله Dai-nos jërëjëf jazakumullahu xeyran demal na demal na bismillah waaw si gën waaw wala nga sànni kàddu yi daal mooy teg mooy teg mooy teg jëwriñ doo jege tege mag yu baax yooyu nga xamante ni tey jii ñu bàyyi vraiment alal ji nga xamante ni amul lu ñu leen ko xamee laay wéyee ñu ngi sant bu baax sëñ bi di nuyu di toog sa wàccuwaay jërëjëf parce que sa maam yi tamit ñu leen si almaan waaye tamit ci barke sa maam tamit ñu leen di sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ndax nag ñu doon ay tutànk doon ay tutànk xam ne tàng nañ ci taarix diggante bi nga xamante ni sekkoo nañ ko ñoom ñaar ba ci am ay xisa yu bari yu ñu nit ba mu seet suñu xol bi lool ba tax tey jii toog taxawee bay mën a jëmbat li nga xamante ni ñoom moom lañ ci wax suñu diggante ak suñu mbokk seen tijaane duñu jàng nag te duñu gërëm ziyaar itam te itam di ko jox wàcc waaye bu wér imaam bi nga xamante ni moo di imaam wala bi sami si Hadj Malick Dieng du ma guddal kàddu yi nag si sama digal jóge rek dama doon faral di wax ni barki démb bi ñuy julli àjjuma ji waaye daf maa jox micro bi ma ne kon jumaa ji képp ku jàpp ni jumaa yi si Hadj Malick yaa ngi nax sa bopp ndax kenn mos a gis jumaa yoo xamante ne julli jumaay Sëriñ Tuubaa ku du taal bi Sëriñ Tuubaa dafa jullee ñu mu si gis jumaa yoo xam ne naan jumaay euh, maam bàyyi ni soxla jumaay bu konte wala maam limaa wala su baax baax ne comme jumaa ji dama jàpp ne alal la joo xamante ni yàlla suñu borom moo ñu ko wàccal fii ci dëkk bi nga xam ne dañ war a woon jumaa bi ngir ñun ñi nga xamante ni ñoo war a benn julee richesse boobu ngir mën a jot ci loolu kon sëñ bi ñu ngi lay siyaar jërëjëf wax ni loolu lay nag la ñu xam ne ni sax addiye moom daanaka rafet suñu cofeel ci yow rafetal ko suñu cofeel ci ki nga xamante ni moo fi teewal si daaj maay ñaan yàlla suñu taxaw ba si yàlla fi yàgg tamit képp ku sa xarit foofu maam yàlla fi yàgg tamit waaye tam di ñaanal loolu seen tuba ak seen dinaay ànd bi yàlla billaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf jërëjëf jërëjëf kàddu yi rafet na salaamaaleykum mbokk taal bi ñu siyaar yëpp di baalu yëpp Mansour sëñ Mouhamadou Mansour di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tam loo wér di ko wax ni yaa di kilifa jataay bi di siyaar tamit imaam bi nga xamante maam du jub di ñu conseillé si lu baax ak ak ñaan di ñaan ma yàgg fi loolu tam loo di siyaar di nekk sama wér mu di sëñ Bawal na ndaw lañu féete waaye dañoo séq si dëkk loo xamante ni maanaam àdduna képp la ñu àndee ko. mu rafet loolu ñuy gisante saa su di di si yenn bërëb di ànd si xew-xewu àdduna lépp. kon bu ñu demee tey ba islam taxaw yaakaar naa li ñu war a mën boole moo ëpp foofu loo xam war nañu mën a taxale bu ñu inauguré yaakaar la jiitu te soññee na si ñëpp ndax suñu bàyyi bu ñu demee ba taxawal lii yaakaar naa ñun am na foo xam war nañ faa tegu mm-hmm. te wax dëgg fa yàlla ma am liggéey bu ñu fiy yëpp sax. dëgg la am na ñoom ñu ci am rafet saa yu xew nii tamit ñun ñi muy màggal muy lépp dañ fay indi ay teraanga dañuy dikk ànd ak ñun ak liggéey bi kon loolu noonu ñu la koy seedeel sëñ te ñun ñii nag ñu naan ndaw sëñ Tuubaa façon kenn ñoo yow ak kóllëre muy fii ak Sénégal ak yëpp maanaam saa su nekk ñu di déggante si jàmm yoo xamante jàmm comme suñu maam yi ñu ko daan defee di la ñaanal nga ñaanal bu baax baax baax baax muy seen tijaan ndawi euh, Sëriñ Tuubaa yi ñëpp rek waa dëkk bi maanaam yaakaar naa sax gars yi wax nañ la problème yi nga am yëpp nga dafa si ay ñaan euh, bu wér wér wér kon xanaa dañuy yemale foofu kàddu yi nga ñaanal ñu soxla yeeg góor yàlla yeeg ñëpp rek waaw te ñu lay wax naan nag dalal jàmm waaw te jël ngeen jëf